bu ñu nekk d'abord contexte bu doy waar la jóge ci ay euh, événements yu doy waar ci banlieue bi ay yëngu-yëngu am fi man en tant que homme politique nekk ci gox waa gox boobu ne dañ may sargal donc ça veut dire waa gox bi ne dañoo kontaan samay act samay action yi ma fi mën a tey sargal ma donc contentement laa ci am te bu ma waa gox gi sargalee man ma nekk ndaw nekk ci wetu président de la république yaakaar naa tey Sénégal la ñu sargal le président de la république moom aussi di leen di bu baax a baax. mais yaakaar am nañu yaakaar tey. gis nañ programme d'urgence boobu di 350 milliards ñu ngi lancé un appel que ñun waa département de Pikine commune de Yeumbeul surtout ñu mun cee jot programme boobu en trois tranches de 150 milliards 100 milliards 100 milliards donc yaakaar nañ ne ñun ndaw ñi soxla nañ ko ak les 50 000 emplois yoo xam ne fin avril dina am ñun aussi ndaw yi aussi tamit soxla nañ ko fii ci département bi ak fii ci commune de Pikine la war nga am générosité delloowaat ko askan bi parce que tey maa ngi nii ci yëmbal taxaw aw ma garde corps aw ma dara taxaw ci biir yëmbal je pense que loolu noonu bu ma amul woon nu ma mel ñoom yaakaar naa du ma am fi taxaw fi moo tax nit bu la président joxe cër cër jooju da nga ko a delloo nga xam ne yow moomoo ko du sa kër yaa ko moom mais cër boo xam ne da nga ko war a delloowaat askan bi donc c'est une manque de générosité boo xam ne tey sama sama mbokku a yi ko mooy yaakaar nañ ne seen salaire ñoom ak seen i jabar donga ko moom mais yaakaar naa ne loolu umpale lu ñu la dénk la nit daal bu ñu la dénkee dara da nga war a delluwaat redistribution bi tey moo waral tey ñun au niveau de yëmbal au niveau de Médina Fall a taxaw fii wax nit ñi di ñu déglu waaw en tant que jeune en tant am ay ambition yoo xam ne am naa ko rêvé tey nekk élu local d' abord mais comme ci parti laa nekk ci coalition laa bokk candidat laa ci candidature pour mën a jéem a jëlee fi maire le maire incompétent Bara Gaye waaw comme je l'ai dit maire bi c'est c'est très catastrophique parce que bu mu fi nekkee ba 2014 ba léegi gisuñu fi benn réalisation bu mu fi def xanaa léegi xam na ne yaa ngi jot muy taf jëngal mais xam nañ ne il a lamentablement échoué sur le plan social sur le plan infrastructure sur le plan beaucoup de choses même euh, ci ci ci plan sanitaire gis nañ ne tey même case de santé yi fi nekk wala poste de santé yi vraiment amuñu sax soutien de la mairie donc je pense qu'il a lamentablement échoué te incha les élections c'est pour bientôt maa ngi ñaan woote autour de rassemblement à tous mes camarades de parti de la coalition pour que ñi ànd bokk ndey bokk baay mën a dem à la reconquête de la mairie de Yeumbeul Sud